di nekk àll ba day nekk Dakar te dafa yor jikko yoo xam ne que yii xew léegi yenn yi mënewu ko ndax lan sëriñ cosaan la boo xam ne que euh, ak lu mbir bi rëbëjoo rëbëjoo moom du bëgg a wàcc àndam day bëgg a tege ci yoonam moo tax bu gisee mbuubit di dugg rek day def ndànk may mbuubit mu romb mu génnaat wax njariñ def dëgg nga doon koo xam ne que ñeme naa ko wóolu naa ko ndax du trian du dóorkat te ku yaru la ku maandu la koo xam na que daal Euh, nitu cosaan la daal ni ma ko waxee xamu xajul ci yenn yi xew daal yin naan euh, jël na sama xaalis bloqué na ma jotatuma ko wala defal na ma ki déedéet day sonn ci yow ngir nga am ci ndam bu baax a baax a baax a baax kooko di kan Serigne Saliou Cissé Kaana Serigne Saliou Cissé Kaana nekk ci Wakaam ba mu koy invité jamonoy LCS fi ma ko doon fekk fi laa koy fekk ba léegi en face pharmacie Moussa pharmacie Moussa nag mën na réeral nit ndax fay na pharmacie musa pharmacie Moussa Seynabou Kane lañ ci bind ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax xamul Seynabou mais pharmacie Moussa moo kër gi ñu jàkkaarloo kër gi am grossiste bi premier étage sëñ Salif Cissé Kaana yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyoo ak àdduna la bu baax ñu ngi lay nuyu yow ak sa équipe leen dalal fii ci Wakaam comme ni ngeen ñi xamee woon rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi ñaan yàlla émission bii nga xam ne moom lañ. commencé ñu yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te comme ni nga ko waxee nit lañ ñoo xam ne lépp lu ñuy wax rek dañoo bëgg mu amal njëriñ nit ñi ci fuñ mën a nekk ci àdduna bi ci Sénégal ak ci biti Sénégal euh, Cheikh Taalif macha allah jërëjëf euh, sëñ Saliou Cissé Kaana gis nañ ne ñu lay soññ ndax nit ñi gis nañ ne yow doo wax ba pare ñu ne borom fit wi doon wax doo wax ba pare ñu ne dof bi doon wax doo wax ñu ne ku ëppal ki doon wax euh, ay at ñu bëgg ngay feeñ mii nga toog naan da gis loo xamul ndax li dugg ci seen biir ma ne la nag li dugg seen biir te bokk ci day génnaat ndax euh, nit bi yor njariñ boo bàyyee boroom fit yi ñuy wax bu amee lu yàqu sa wàll nga ci maanaam boo noppee ci loo war a wax rek lu yàqu yow boo waxee ci loo war a noppi lu yàqu yow mais nga ne daal mbubit mi da ngay bañ ñu jaawale la ci mën a la déedéet nit ñi dofuñu xàmmee noonu kii mooy ak kii ku wax waxu nit ak kuy def yëfu nit loolu daal mais léegi nga dem ba nangoo feeñaat moo tax des diaspora bi dañu kontaan ci sa émission loolu nga nar a indiwaat tey lu bees tey dina yëngu dina tàng. waaw tey dina yëngu dina tàng dina neex ndax euh, mbokk yi fenn fu nekk la ñuy wooyee ci Sénégal ak ci biti Sénégal dañuy wax ne dañ laa gëj a gis ci euh, ngay wax. te jamono bi war nga wax ma ne leen ah waaw jamono bi de kenn ku nekk dafay wax. ndax am na ñoo xam ne nitu buzz lañ. ñi ngi wax ñi ngi yàq. Euh, ñu ngi yàq lu baree baree bare bare su ko defee nag ñun su loolu ñëwee dañuy teey ànd ak dal te dëkk bi yëngu na euh, te loolu yëpp ñun gor lañ yoo xam ne bëgguñee wax luñ xamut bëgguñu waxee fit ci loo xam ne xamuñ ci wala yu demee noonu ndax yàlla dafay tere loolu nit ki bu dara dikkee te xamagoo li ko indi wala nga xam ne li ko indi sax waaye lii boo ci waxee it maanaam jamono mën naa defee neneen su ko defee yow na nga téye sa bopp xaar ba jamono jot wax nga wax loolu moo tax tey ñu ne danañ waxaat ak askan wi Cheikh. Ah. jërëjëf euh, sëñ Saliou Cissé bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro sëñ Saliou Cissé Kaana numéro bi nag émission yàgg yi sax moom nga ciy fekk bu baax a baax maanaam ni ma ko waxee tuxuwul mooy du dóorkat du trian day ñëw daal li nga ne indi nga ko bu ko manee mu def ko bu dee lu munul mu mandu ci bu baax a baax billaay defal 77 734 36 37 77 734 36 37 numéro bu yomb jàpp la ah. am na whatsapp ah nga dis ko soxla mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla ma xam tëlewul dara te mën na lépp beneen bi 78 226 49 61 78 226 49 61 yépp am na whatsapp sëñ si sa Kaana nekk ci Wakam jóge tamit Saalum ca dëkk yu ñàng ya nga fekk ko en pharmacie Moussa nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp euh, yow mi nga xam ne da nga nekk bitim réew insistel ci whatsapp bi boo ko audio mu yéex a tontu dolliwaatal ndax ñi koy audio bari boo wootee jëlul insisté waatal di nga ko jot ndax euh, léeg-léeg tamit yor kurus nga dis ko soxla lu mu ci mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam dara te mën na lépp sëñ Saliou Kaana balaa ñuy sori ci waxtaan bi dafa am actualité boo xam ne que euh, pour nit ñi wax ak yow lu jëmul ci loolu sax du jafe moo tax faw bu may def émission ma dugg ci muy mbirum jàmm Sénégal da ngay dégg euh, kii naan euh, Ousmane Sonko président Ousmane Sonko boomul jàmm Sénégal du am jàmm ñu gis ne jamono ji ay mbiram xaw na mel lu lëndëm te tamit Sénégal tamit ñu bari ak ñàkk a ngi leen sonal ñu bakk ñu bari seen liggéey ñu bari amuñu sécurité problème am kii di président Macky Sall ne du def. Euh, troisième candidature loolu doon loo xam jàppoon nañ ne war na indi dal mais bin ñu songee Sonko daal gis nañ ne dëkk bi mii ci jamono yu xaw a doy waar ñu bëgg xam yow lan nga gis ci lan lan mën a def pour Sénégal kenn ku ne am lim moom ay war ay moomeelam te jàmm am waaw muy mbirum Sonko Macky Sall waaw mbiru Sonko ak Macky Sall la maanaam balaa daf ci jaaree wàcc. balaa daf ci jaaree wàcc. waaw balaa dafa wàcc ci réew mi. Mm-hmm. dafa wàcc ci. adduna bi sax lay wax. ndax depuis corona bi ba léegi boo xoolee. jafe-jafe bu dem rek beneen bi ñëw. waaye nag mën nañ am yaakaar ne jafe-jafe yii su demee yomb-yomb dana ci tegee. dana euh, dama toog Cheikh ma def ci gëstu. Mm-hmm. ci mbiru président Macky sàll mm-hmm. ak mbiru président Sonko. Mm-hmm. Euh, li ma ci gis. mooy moom Sonko ci boppam. ay yàq-yàq mi ngi ci moom. yàq-yàq waaw ay yàq-yàq ci baatin gis nga ay mbiram ni mu yàqoo ci saaxir mm-hmm. ci baatin bi noonu la yàqoo mm-hmm. waaw Sonko dañ koo jekku Sonko mm-hmm. ay ay def-def yu doy waar mi ngi ci moom waxuma ko nag ngir lenn waaye dama ko wax rek ngir xam gi ma ko yàlla xamal ñi taxaw ci ay mbiram ngir ka mu mën a tegee ci yoon euh, Sonko def-def luy saafara bi sarax yu koy dindi sarax mi ngi ci ñaan yàlla mi ngi ci ndax liggéey yu jàpp liggéey yu doy waar moo ci ne. Hmm, sarax yi doo ko wax pour nit ñi ko mën ñu def ko. li ma ci mën a wax. Hmm. maanaam bokk na ci. ñetti ginaar. ñetti ginaar yow su sarax yomb na di sax waaw. ñetti ginaar yi benn bi. waaw dafay nekk ginaaru tiir. ginaaru tiir waaw. ginaar beneen bi. Hmm. dafay nekk ginaar bu weex. ginaar bu weex. beneen bi. dafay nekk farandumbe. farandumbe mooy ban bu dégg doon. moo mooy boo xam ne dafa am lu xonq ak lu weex. sarax bii. Mhm. daf ko war a def deux fois. waaw muy juróom benn ginaar la war a jënd. Mhm. ñaari na nekk tiir. yeneen ñaari na nekk ñaari weex. yeneen ñaari na nekk ñaari xonq lii mooy. saraxu song gannaaw bu defee lii. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ñooy ay noonam. yàlla dana ko musal ci ñoom. lii mooy saraxu Sonko. saraxu Sonko bon mooy première saraxam. waaw lii mooy moom daal lii mooy première saraxam. première saraxam waaw moom lii laa ci gis. waaw. bu ko defee bu ko defee. Hmm. maanaam jafe-jafe dootul avancé ti. xam nga ju xam nga Ousmane Sonko mooy ay jafe-jafeem dafay avancé. dafay avancé maanaam bu defee lii tey. bu duggee ci lii tey bu subaa beneen bu gën a garaaw muy ñëw. Hmm. dafa mel ne rek nit koo xam ne dafa feebar bët bu set feebaram bi di gën a yokk nit ku bu feebaree am na fu muy toll paracétamol mën na koo faj mais am na foo xam ne bu fa yeggee maanaam alfook danañ ko sampal ay butéel léegi nag moom Ousmane Sonko loolu moo ko dal maanaam jafe-jafe bu dikk rek day am beneen bu ca tegee boo xam ne dafay gën a garaaw yow sarax yi mooy jafe-jafe yi dakk bi indi xewal ci moom nag ban la waaw loolu lu ñuy dind ci moom la Ousmane Sonko lu nekk ci moom gis nga Ousmane Sonko jafe-jafe mi hmm. maanaam ci ñi ko njëkk yëg ci laa bokk hmm. dafa am benn waaye boo xam ne bu ko jege la ñu koy wax Cheikh Fatma Diop. waaw ku jege woon usmaan Sonko la. Mhm. bi nga xamee ne jafe-jafe yi commencé na daf ma woo ne ma sëriñ bi loo xam ci jafe-jafe Ousmane Sonko. Mhm. ma ne ko soo ma joxee temps ñi fay coow li. ñu waaye loola xay na yàlla defut mu jox ma ko wala dégguwuñ ci woon. Mhm. ba joxutoon ma ko man a ah ma téye sama kurus di kon ne sama liggéey. gis nga moo tax ay mbiram nekk nekk fi waaye daal Sonko li ma la mën a wax ci gàttal. Mm-hmm. ay mbiram ni mu yàqoo ci saaxir. Mm-hmm. ni mu yàqoo ci baatin moo ko raw. te bët bu set. Mm-hmm. sarax yii ma ko wax su ko defut taxaw ci boppam. lu mu dugg tey wala lu xew tey ñu ne jafe-jafe la bu subaa day am beneen bu ko gën a garaaw. te li may wax nii ñëpp mën nañ ko seet. mais moom gis nga ci moom gudd fan ak wér wala. waaw gudd fan mën na nekk ci moom. waaye nag pour mu réaliser dara fi mu toll nii loolu mooy problème bi. pour mu réaliser ti dara. président bi ñu séntu nii gis nga ne lëndëm. li ne ci moom de su dëñut waxuma la cinquième président waaye pour mu réaliser ti dara ci àddunaam day xaw a jafe ndax ay jafe-jafe laa gis ci moom. Hmm. président Macky Sall. li ma gis ci moom moom mooy dafa jaaxle. dafa jaaxle waaw moom jaaxle na jaxasoowut nag. Hmm. mais jaaxle na. Hmm. li ko jaaxalit mooy wàllu. ci kanamam avenir am mooy ëllëg ñi ànd ak moom ëllëg njabootam ëllëg nu muy taxawee loolu moom gis naa ne jaaxal na ko mais nag li ma gis mooy bum décourager lu mu am tey loo xam ne xéwal la wala yokkute la wala avancement ba avancement la suba mën naa am lu ko ëpp suba mën naa am lu ko ëpp fuuf sax ah, man naa am yeneen poste mën naa am yeneen ni daal yoo xam ne gis naa ko waaye nag loolu li tax mu am ko moom tam mooy ñàkkaa découragé mooy ma gën Macky Sall moom li ma gis moom mooy saraxam moom mooy ay bëy bëy waaw ah, bëy moom mooy saraxam waaw bëy daal moom gis naa ne saraxam la te dana ci def lu takku mm-hmm. dégg nga moom loolu mooy saraxam lii amul bëy yu xonq amul yu weex amul yu kii bëy rek waaw moom na nekk bëy rek li may faral di wax sarax daal moom ni ko yàlla waxee ci alxuraan Euh, maanaam booy euh, booy joxe daal na nga joxe lu baax waaw yàlla mu ne lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun du ngeen am lu baax mukk lu dul ne su ngeen di joxe da ngeen joxe lu baax dégg nga hmm. loolu la ñaare ba tegu ci it wàllu xam-xamam hmm. mooy xam-xam bi ko yàlla jox hmm. nga xam ne mu ngi koy jéem mu ngi koy liggéey te mu ngi koy exploité am ñoo xam ne taxaw nañ ngir tëj ko moom tam Macky Sall ngir tëj ah, maanaam xel mi ko yàlla jox ak niveau bi mu am maanaam loolu am na ñoo xam ne toujours dañuy jéem fatt xelam pour que maanaam du amati xel mu mën a liggéeyee wala muy jaxasoo wala yu demee muy juum rek loolu moom tam gis naa ne maanaam mi ngi taxaw ci kanamam tey am na ay noon yoo xam ne it ngi ci kanamam yoo xam ne xay na daal na taxaw ci ay mbiram bu baax a baax baax su ko defee daal lu mu am tey rek suba mën naa am lu ko gën a baax jërëjëf mbokk yi seetaan euh, TV bu baax a baax a baax ñuy dalal kii di sëñ Saliou Cissé Kana dégg ngeen li wax ci kii bi saraxu Sénégal nag ban la boo xam ne que nag askan wi koo def am jàmm. waaw saraxu waaw koo xam ne ku nekk bitim réew yëpp bu ko defee yow fitna yi mën nga ci mucc. mën nga ci mucc. waaw loolu ba tey eh, saraxu Sénégal am na. bindal bi waaw jëlal leen numéro yi. waaw saraxu Sénégal dafa am. waaye saraxu nit ku nekk dafa am. saraxu nit ku ne pour fitna yëpp nit ki mucc ak njabootam. yi mucc maanaam. pétrole bii nga xam ne moom lañ gis man bokk naa ci ñi ko yàlla njëkk xamal te li ko waral mooy ñi ko doon seet ñoo ma duggloo woon xalwa ma di ko seet bi mu ko gisee waaye mooy pétrole bi bi mu ko gisee ma ne leen nag leen def saraxu nag saraxu temps ak temps mhm. loola it gis naa ne maanaam defuñ ko waaye nag jafe-jafe yii nii ma gis mhm. ndax euh, tey par exemple kër ba ci ñuy dem Niger ak yëpp armée bi yëpp seen sarax ak policier waaw yëpp danaa ko wax maanaam tey par exemple réew mi jafe-jafe yii mu nekk nga xam ne fenn fu nekk mi ngay boy fenn fu nekk mi ngay tàkk mhm. euh, safara moom ci saaxir mhm. métti na baaxut mhm. waaye nag fu mu jaar bu fa jogee yokkute moo fay am ci misaal boo demee Saalum ñun dañ daan wax ne kër su tàkkee xale bi nga xam ne moo taxal kër gi wala ki nga xam ne moo taxal kër gi dana am gàcce dana am lu ko métti dana rus danañ ko duma lu ne danañ ko ko def waaye kër gi tàkk yàlla dana def maanaam balaa déwén bu fekkoon ne néegu ñax moo fa ne andiir moo fay ne lépp lu fa lakkoon dana ñëwaat te buy ñëwaat bees lay nekk mooy Sénégal ni jafe-jafe yi muy am muy tàkk fu nekk mi ngay tàkk su fayee rek su tàkk-tàkk yi fayee rek Sénégal dana nekk Sénégal boo xam ne Sénégal bu naat lay doon Sénégal bu neex lay doon Sénégal bu avancé lay doon Sénégal boo xam ne ñëpp danañ juboo nekk benn waaye nag euh, balaa muy am ndax li olof di wax balaa ngaa omelette da nga toj nen léegi ci toj nen boobu lañ toll. saraxu Sénégal daal. waaw saraxu nit ñi ak ay booy wax ko lii ku ko ñaan am jàmm waaw ku loo xam ne ku ko ñaan am jàmm. ak sarax bi. Hmm. mooy kenn ku nekk su ko manee. dafay bind aaya alxuraan bii. mooy kullama awqadu naaran lil xarbi atfaaha llaahu. Hmm. nañ ko bind 314. 314 waaw am na ñu koy def 313 baax na. mais 314 moo gën. Hmm. suñ ko defee 314. kenn ku nekk boo ko manee. maanaam. koñ ba nga dëkk nga gas ko suul ko fa même bu fekkee mairie bala moo gën wala nga gas ko sa kër def ko wala nga seet wala nga seet mbedd ma ëpp ca koñ ba mbedd li ñuy wax 30 mètres ba hmm. nga def ko fa soo ko fa defee rek gis nga boo ko defoon ci réew muy xare hmm. ñëpp dañuy teg seen ngàndaay boo ko defee ci dëkk buy xeex ñëpp dañuy teg seen ngàndaay kon baat yu gi amoon baat yow la sax jàmm du fa am hmm. ñëpp dañuy juboo jàmm dafay nekk te képp koo xam ne bëgg naa indeeti fitna yàlla mooy fay fitna boobu. lii moom maa ko joxe kenn ku nekk na ko bind 314. 314. kullama xadu naaran lil xarbi atfaaha laaw aaya alquran la kenn ku nekk su ko bindee lii mu suul ko ci suuf billaahi lazi laa ilaaha illaa coow dana jeex ci Sénégal jàmm dana fi am dal dana fi am juboo dana fi am déggoo dana fi am te avancement bi dana yokk jeex na ci ak ku fa nekk nga bëgg mu génn. waaw loolu am na ñoo xam ne tey dañuy ne ci kaso gi <clears throat> woo ñi ñi defal leen ay ñaan ñi génn ci kaso bi jaar si fii ci kër gi. jaar si fii ci kër gi dikk ñi defal leen ay ñaan ñi dem sangu ñi dellu seen kër. kon daal génn ku nekk kaso yomb na la. waa am nañ ci ay ñaan yoo xam ne tawasul boobu képp kuñ ko defal nga nekk ci kaso. Mm-hmm. moom doo dugg kaso. képp koo ku duggul du dugg ku fa dugg day génn. ku dugg ku dugg suñ ko defee dana génn. incha allahu taala bu jël gëléem dugal ko ci nekk tëj ko. maanaam yow doo dugg ko sama soobee yàlla. incha allah jërëjëf sëñ Saliou Cissé Ka nag gis ne numéro bi mi ngi noonu ci écran bi bu baax a baax a baax léegi ñaan ubbeeku ak listixaar euh, ak xaalis ko wu am wërsëg ak xaalis mm-hmm. waa ñaanu ubbeeku. ak wërsëg ak xaalis. ginnaaw boo listixaar dafa mel ni yow lépp looy def yow dafa mel ni doo làmbut rek dugg il faut nga listixaar ba pare. soog a dugg <coughs> <coughs> dañuy listixaar ba pare lépp lu ñuy def dañuy listixaar xool euh, nit ki xam tolluwaayam ci jafe-jafeem wala ñu xam tolluwaayam ci yomb-yombam wala ñu xam tolluwaayam ci wér-géramam wala ñu xam tolluwaayam ci wéram dégg nga suñ ko xoolee ba pare uh-huh. soog a mën a xam nag. maanaam lan lañ koy defal ak ban sarax lañ koy wax ne ko defal lii ak lii ak lii su ko defee buñ ci jubóoyee ñi defal ko ay cangat moo xam koo koo xam ne dafa bëgg ubbeeku ci wàllu wërsëgam nga xam ne dafa bëgg wërsëg moom wërsëg la bëgg xaalis ubbeeku lépp di ñëw ñi sangat ko waxtu wi ñu ko sangatee balaa muy delsi moom bu fekkoon ne dencu dara dana gis ne dana commencé di denc bu fekkoon ne denc na dara gis ne maanaam am na avancement ci lim denc bu baax a baax masha kon daal di ngeen ko comme comme fii daal kon ku bëgg ubbeeku daal yor di ñam di képp koo xam daal da ngaa bëgg ubbeeku. di mos comme ñëpp. ñëwal maa la garanti. waaw nga ubbeeku. xam nga ubbeeku nag. mooy eh, nanga nga ubbeeku lépp yomb la. mooy tey bu fekkoon da ngay demande liggéey soo ubbeekoo. dana am poste yu la woo ba mujj yow yaay tànn bu la neex nga dem ca. loolu nag boo ko ak ubbeeku nga waaye nag wërsëg nga bëgg ndax eh, bari na koo gis muy liggéey du wax ne man liggéeyu ma waaye nag mënul dajale dara. dégg su ko defee am na loo xam ne dañ la koy defal nga xam ne yow di nga mun a am wërsëg bu fekkee sa loxo bi dafa mel ni ngelaw lu ci jaar dem mm. dañ lay defal ay cangat yoo xam ne wala ay ñaan yoo xam ne wala loo xam ne sax da nga koy raxasoo mm. wërsëg dana taxaw ci sa loxo da nga mun a dajale pour que nga mën a réaliser comme ñëpp conteneur yi jar bu amee projet projet yi sotti buy kii ñi ngi ko gëjoon dégg te amul ko njariñ ñooñu di ko jotaat lépp daal lépp lépp doxaat lépp di dox loolu mooy ubbeeku ak loolu mooy wërsëg ak it nga mën a dajale dara muy li ñuy wax alxina mooy koom-koom mën a dajale ci sa loxo ba nga man a wax ne man denc naa ay millions wala denc naa ay milliards wala denc naa lu ne ndax ma fii nit dafay bàyyeekoo bitim réew paas ñëw fi mm. ñi defal ko ay cangat boo demee ay weer mu ne maat sëñ bi wax dëgg yàlla yëg naa yokkute te même moodu moodu yi nga xam ne dañuy bàyyeekoo Europe di ko def direct fii buñ dikkee mm-hmm. sangu buñ dilaatoo dañuy gaaw a ñëwaat ndax dañuy gis ne bunt jërëjëf sëñ Saliou Cissé Kaana doon Saloum Saloum nekk ci dëkku ñàng yi nekk fii tamit am ay at tuxuwul changé wul numéro ndax teg liggéeyam ci yoon bu baax a baax euh, macha allah yow da nga ginnaaw boo listixaaree nit bu bëgg am muslaay ak ku bëgg mucc ci cat ak ku bëgg mucc ci njabar nga ne boo ko muslaayee ba pare tamit lu ci nekk ci nit ki rek ginnaaw xaar bi dinga ko wax mooy lan. waaw bu ñu ko listixaaralee ba pare lépp na ci nit ki ci wàllu cat. ci euh, ci wàllu liggéey njabar ak ci wàllu yaram bu tilim wala ci wàllu feebar wala liggéey waaw yii ñooy téye doom aadama mm. wala sax ci wàllu rab ndax nit ki euh, léeg-léeg nit dikk fi mu ne ma sëñ bi dee man nangam moo ne ci man ma ne la déedéet bul wax loolu comme maanaam xam-xam am na nañ bàyyee xam-xam mm. lu xam-xam wax ñu xam ne lii moo am yow nit ki mën na foog ne cat moo nekk ci moom fekk liggéey moo ne ci moom mm. nit ki man foog ne liggéey moo ne ci moom fekk cat moo ne moom mm-hmm. nit ki mën na foog ne ñaar moo nekk ci moom fekk yaram bu tilim moo ne ci moom mm-hmm. nit ki mën naa foog ne yaram bu tilim moo nekk ci moom fekk feebar moo ne ci moom ndax feebar bokkut ak yooyu dara mm-hmm. te pour nga ñu xam ne yow lii moo ne ci yow yow tam nga xam ko nga noppalu dañu lay defal listixaar listixaar nag dafa bari ay façon am na boo xam ne dañ lay defal maanaam fanaanu loolu dafa am am na benn listixaar boo xam ne dafay dox ci bërhuut waaw am na listixaar boo xam ne dafay dox ci ramlu am na listixaar boo xam ne sax dafay dox ci nit ki dafa am lu mu bëgg tey nit ki dafa bëgg bàyyeekoo ci place bi dem ci place bi wala nit ki dafa am lu mu bëgg commencé wala nit ki dafa am sëy bu mu war a dugg mu ne man ma seet lii ndax ma dugg ci wala ma ñàkk ciy dugg mm-hmm. listixaar bi ne la lii wa man yafaal zalika yalqaa asaaman mu ne li ngay laajte nii soo ci duggee ay loraanga kese nga ciy jëlee wala mu ne li tarki fii raxatun li man araadahu maanaam nga bàyyi ko moo gën a nekk sa noflaay ndax nit dana dugg ci dara te fekk loola ay coono kese kese nga ci amee donte la danga ci am njëriñ wala am na jafe-jafe am na sarax yu ci mën dara wala tamit sans sarax day baax wala sarax day gën a baax mi ngi noonu wala sax mu ne la abshir tanal muraadaka wa matlubaka mu ne la da nga bég ci li nga xam ne yaa ngi koy sàkku danga ci am mbékki da nga ci am yokkute wala mu ne la ab tariq ifrahan wa xayran aqbil laa taxaf mu ne la li nga dugg nii maanaam continuer ci avancé ci da nga ci am mbégte da ci am xol bu sedd waaye da ci am avancement wala ñi defal la li listixaar gis na yaw da ngaa war a def saraxu sangam ak sàngam ñi ne la defal saraxu sangam ak sangam nii nga koy defee bu fekkee loo war a indi fii la ñi ne la fii lañ koy defee bu fekkee loo war joxe feneen la ñi ne la fanaan da ngay gis ne sa yaram dafay oyof sa xel dafay dal ñu jox la ñu soog laa commencé liggéey na bu ñu la liggéeylee ba pare yow kenn du la ko wax yow yaay xam ne dëgg dëgg Serigne Saliou Cissé kaana lim ma jox wér na ndax tey rek maa ngi diggante léegi benn jigéen bu nekk Belgique xam nga ah, olof day wax ne jàmm muy umpante waaw léeg-léeg ni am na ñoo xam ne da ngay liggéey ñoom dem ba ci kanam xëy na am ñu jaar ci bëgg changé sëriñ wala yu dem dañuy dem dem ba ci kanam xam ne dëgg-dëgg sëñ Saliou Cissé mm. lim ñuy wax keneen duñu ko wax lim yi wax dañ koy tëg bët lu wér la lu wóor la lu am la te duñu jay du lekk suñu xaalis ci neen ak neen wala duñ ko mu ñàkk ñuy jël wala duñu nekk dañuy ñuy dawloo heure bi mu la jox bu pa euh, heure boobu jotee ñu la sa garab a ngi nii euh, nga da nga ci jot ci heure boobu. daal ñu nga ñëwaat ci seet seet daal moom tamit sa domaine seet sama domaine la boo xam ne bokk ma ko kenn. seet li ma ci yàlla may. Mm-hmm. maanaam néew na ñu mu ko ci may. ndax dama ci am ak tarbiyu. Mm-hmm. waaye it dama ci. def lu baree bare bare ay jaloore wax naa ba tey ne damay seetal nit ba ba tey muy jooy mm-hmm. wala nit boole ma ak nit mu foog ne damaa wax ay mbiram fekk seet gi moom la yàlla leeralee noonu wala moom la yàlla barkeelee noonu damay tere sax ne ku dikk pour nit xoolal la bul wax ne man dikk rek toog naan man daal sëñ bi dama jaaxle wala dama def nii wala dama koy tere mm-hmm. maanaam képp ko xam daal dañ lay seete yow daal dikkal toog rek joxe sa tur li ñu la laaj nga joxe ko mm-hmm. nga ne xoolal ma ñi def li ñuy def ne la jox la big bi nga def ci li nga ciy def ñu la incha allah lépp bu ne ku nekk bitim réew moom tam bu dugalee li mu war dugal mu def ko transfert incha allah bu joxee turam ak santam ak tur yaayam ak santam danañ ko wax lu mel ni midi danañ ko ko wax loo xam ne maanaam dara du ko dina te bu ko toppee bu fekkee kayit la bëgg wala lépp lu mën a bëgg dana ci teg bëtam ne liñ ma doon wax nii lu nekk la même bu fekkee ne sax say mbir dafa xaw a dëgër koo xam ne ay mbiram dafa dëgër balaa mu ci jot dafay sonn dañ ko koy wax pour que mu préparer ko ndax euh, comme ni ko mbër yi di defee léeg-léeg nga gis koy dem ci combat la combat bi du yomb. nga xam ne yow danga nga entraîné. Mm. long lu lu lu lu entraînement yu kii gàllaaj lu nekk su ko defee euh, mbir ay mbirit noonu la. Mm. Euh, dafa am benn waaye boo xam ne dama mos a moom <coughs> muy xaw a contour listixaar ma ne ko listixaar mënoo ko fi jëlee mm. ndax listixaar yow bu fekkee ne da ko fee génnee pharmacie bii nga xam ne boo xëyee dem mu jël sa deret bi ne la taamoo ne ci yow sa suukar nangam la tool wala sa tension nga gëm ko. Mm. loolu kon boo dikkee ci man ma wax la ci li ma domaine bu ma jàng waroo ko waroo waroo ko contre da war a xam ne xam-xam xam-xam la rek. xam-xam xam-xam la rek jërëjëf sëñ Saliou Cissé Kaana kontaan nañu bu baax ci dal gi ak waxtaan gi maandu gi bu baax a baax sëñ Saliou Cissé Kaana euh, ku nekk bitim réew ay kayit tëkku muy muudu muudu wala faatu faatu ak koo xam ne que dafa nekk bitim réew am nay kayit mais liggéey tëkku. am koo xam tamit am na liggéey mais liggéey bu baax tëkku ak ku nekk senegal gii bëgg dem bitim réew mu tëkku ak ku nekk bitim réew bëgg a yóbbu njabootam mu tëkku xet yooyu loo ci mën ay kayit ak xet tukki daal waaw kayit moom li ma ciy defal ci nit bari na te maanaam ñëppay am kayit wala nga xam ne la ca ëpp boog dina am kayit waaw képp koo xam ne dangaa nekk bitim réew mm-hmm. nga am problème mu kayit mm-hmm. nga ne man kayit daal laa bëgg mm-hmm. wala am na ñoo xam ne am nañ këyit waaye dañ naan liggéey moo të am na ñoo xam ne dañuy am liggéey sax waaye duñ mën a am maanaam embossement wala contrat bu dëgër mm-hmm. yooyu yëpp dañ ci am ay ñaan yu leer yoo xam ne mm-hmm. euh, buñ ko defalee nit ki mu jëfandikoo ko niñ ko ko waxee mm-hmm. moom mooy toogaat xooma ne ma këyit yi ma doon lijjanti de sotti na wala mu ma bi sàngam danaa ñëw wala am naa yaakaar ci këyit yi wala am naa avocat li ma taxoon yëpp lijjantiku na te loolu nit ki joxe xaalisam maanaam jàllal bi ko di ñaanlu soo ko defalee lu wér xam na soo ko defalul lu wér xam na ndax damay wax ne nit ki nga xam ne mënul dawal oto su duggee ci oto bi oto bi di daw lu jaadu moom xam na ko bu oto bi daw lu jaarin xam na ko ndax yàlla moo koy xamal kon su ko defee nit ki même bu fekkee mënul bind mënul liir waaye soo ko yónnee loo xam ne lii kat jaar na yoon xaqiiqaam moo koy wax ne ko lii dee jaar na yoon du tere nag dama naan xudura ak iraada yàlla moo ko yor nit ki da ko ñaanal ba yow mi koy ñaanal nga xam ne kii li ma koy ñaanal yàlla nangu na ko benn muy ci xalwa wala muy ci mbind wala ci tàllal ñaan wala ci xaatir wala yu demee noon yàlla xamal ne ne kii liñ koy ñaanal nangu naa ko waaye nag bés beeg waxtu weeg seconde yeeg minute yi kooku yàlla moo ko moom kooku yàlla moo ko moom heure bi nga xam ne ak seconde yeeg minute yi yàlla moom moo xam heure boobu ban ban heure lay wàcc waaye daal képp koo xam ne dikk nga fii wala nga ooñu téléphone ñu ne allahuma ngir yow incha allah sa aajo boobu moom dana fay. côté boobu ma di ci wax ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, am na ñu bari ñoo xam ne que dañuy seen sëriñu mbuubit yi euh, dugg ci mbir yi di wut xaalis dajeeg yàlla war sa nattu leen ñu dajeek ñoom jaare fa bëgg a weddi ñëpp fekk li ñu doon def ci sëriñ léegi bu ko amaatoon sax jël. léegi yow la nga doon def ci sëriñ nag bu dee mënatoo ko am te bàyyi nga sëriñ kon xam nga ne ñaan lu baax na ci yow am na ci ñoo xam ne que famille yoo xam seen famille xeetu ñàkk sarax ak yu mel noonu nga jékki-jékki gis ñenn ñi di dëddu rek ñenn ñi di daanu rek ñenn ñi di am problème kon euh, de di ñaan lu Afrique la nekk nekk ci biir tubaab yi bàyyeeku nag loolu dal mooy mooy sa kaw gars yi ku la ci dàq critique sëriñ moo la gën a gëm sëriñ ci suuf bu leen bàyyeeku de boo dajee junniy sëriñ nag euh, même bu la naxee ki ngay soog a dajee loo ko tey ni sëriñ si mel noonu lañ amee mécanicien yoo xam dana jël pièce su jàmbur montel ko kaneen am na ñoo xam dana jël yëfu jàmbur defal ko leneen ñu jubadi moom fépp la am mm-hmm. kon di ñaan yàlla nga dajee ku jub bu baax a baax mais da nga ne daal kon yow mu ma la déggee wàllum bitim réew maîtriser ko ko mais sànq da nga waxoon ne kon ku am sens it dugg Sénégal bu mënee fexee ñam say bagage bu demee dem ak ñëw dina gën a neex la bu ku ñam samay bagage ñëw jaar si fi sangu waaw boo demee du yàgg da ñëwaat da ngay yëg ne koom-koom ngay ñëwaatee xaalis ngay ñëwaatee wërsëg ngay ñëwaatee wér ngay ñëwaatee kon daal ku am occasion ñëw Sénégal jaaral ñamaale bagaasam lim lii kii tamit fexeel mu yónnee la ko nga ñam pour mën a ñëw boo ñëwee mu gën a neex nga dellu man nag moom booy bëgg rek nga bàyyi ma xel ah man nuyoo murit comme du ma ñaan kenn nag mais nag ku ma jox ma jël waaw terewu ma ko de sama tur dëgg dëgg dëgg nag ci tele bi ku ma dul liggéey Cheikh Diop laa ku may liggéey mm. ah barke Rasulaay kon sama numéro 77 527 18 07 boo bëggee ci sëñ Saliou Cissé Kaana rek euh, am na fu ne transfert nga bàyyi xel foofu bu baax a baax a baax waaw ñenn ñi moom ñu ngi indi dagg bi avion ñenn ñi ngi indi yére ñenn ñi ngi indi chemise ñenn ñi indi Lacoste ñenn ñi dàll ñenn ñi montre ñenn ñi téléphone kontaan nañ ci yéen daal moo tax loo triant di am ci liggéey bi rek ñun ñi ngi def dëgg di ko am moo tax duñ ko foyee duñ ko café duñ taxaw di wax mukk lu dul dëgg te kun wóoluwul duñ taxaw mukk ne wóolu nañ ko waaw lii daal la ñuy demee ak yaakaar. waaw Cheikh li nga wax noonu dëgg la yow doomu daara nga. te it bëri na koo xam ne xam nga site internet yi bëri na. waaye site bu nekk dafa am lu tax ñi di ko seetaan. Tektal TV. Mm-hmm. képp koo xam ne da ngaa am problème. Mm-hmm. ci fi nga nekk ah. wala ama koo waxtaan ak nijaay joo waxtaan ak hmm. wala baay joo waxtaan ak wala mag joo waxtaan wala rakk joo waxtaan ak da ngay wala loo mënul wax kenn da ngay liggéey ba wàcce da ko toog sa sa kër di misère da ngay da da ngay dem Tektal TV boo demee teg Tektal TV hmm. da nga gis hmm. koo xam ne yow boo waxtaanee ak moom danga xam ne kii dëgg dëgg taxaw na ma taxawaayu nijaay te loolu dañ koy am te loolu tiyaaba ju rëy a rëy nga ci am seex ah. yàlla daf la ciy fay ndax léeg mu ngi noonu hmm. ndax nit dafa may woo léeg-léeg jigéen daf may woo jooy ne ma man awma ku ma waxtaan ak wala li may waxtaan ak yow ni bugguma samay mbokk xam ko su ko defee ñi waxtaan ñi teg ko ci yoon faree ko fi nijaay di farete jarbaatam wala fi bàyyi di fare doomam wala fi mag di faree rakkam hmm. ñuy waxtaan mu dem ba tegewaat ci yoon xam ne nit ñi nit ki dafa war di waxtaan ak nit ñi te loolu tiyaaba ju rëy rëy nga ci am te sa Tektal TV bi loolu mu ngi ciy dox dox bu baax ci ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim réew. man maanaam tey bi ma la dalee invité ba léegi xam nga nit bu ma booy invité kenn du la woo kalaame la ak moom euh, ñi sant gërëm sax day mujj maanaam li ma naan ay résultat bu ñu ko mënee wàññi rek jaratu ko maanaam résultat bu ñu ko mënee wàññi jaratu ko boobu euh, ko li ma ëppal solo ci résultat mooy nga jël émission nit. mu yàgg te déggoo kenn ku jàmbat jëmale ci moom ndax Tektal TV moom àdduna ñun la ni seetaan moo tax Penda Fall li muy wax rek nee naa ngeen ku fàtte abonné nga abonné waat ku abonné gisoo émission yi del abonné bés rouge bés cloche bi émission bi page Facebook Tektal TV l'officiel mais demal ci YouTube bi nga setaane ko foofu ëpp solo bu baax a baax euh, ak sëñ Saliou Cissé Kaana kon lii daal domaine la boo xam duñ ko café duñ ko fowe ndax ñi ngi ci am lu ne ngi ciy dem fu ne ñi ngi ciy xam ku ne te dëgg rek lan bëgg ko teg kuy teg dëgg rek dañ ci kontaan soxna Ramatulaay Ndoy gërëm nañ la ci États-Unis moom day bëgg Tektal TV bu baax a baax a baax a baax te nag ku wax waxu nit rek da lay déglu Penda Fall ku wax waxu nit da lay déglu Ibou Dieye ku waxu nit da déglu gis nga nit ñi euh, ñun dëgg lañ soxla daal nekkuñu fi di def ay buzz ay yooyu non non bëgg nit ki wax xam-xam ak njëriñ ñu xam ko euh, léegi jëmmu kii nag noob maanaam koo xam ne que dafa bëgg soxna ak jigéen ñi nga xam ne kay Effenberg lan doon nañ mag bëgg boroom kër bu baax mm-hmm. ak ñenn ñi dañu am koo xam ne kii leen bëgg mu takk leen ak ñoo xam ne dañuy xaar ku baax ñëw mm-hmm. xeetu noob daal ak euh, boo xam day jàpp mm-hmm. ki bëgg sëy sëy ki bëgg jabar am ko ki bëgg euh, këm bëgg mu am ko mu takk ko daal waaw waaw alhamdulilah loolu am nañ ci ay résultats yu yuy leer dafa am fan yee rek benn gendarme ah, bu ma doon ñaanal benn gendarme ma doon ma ñaanloo ci benn jigéen yàlla def euh, mu takk ko. mu te loolu li ma ciy am. Mm. duma ko mënuma ko wàññi sax. Mm. waaye loolu nag maa ngi ciy gërëm sama bindkat yi. Mm. gis nga Cheikh. damay faral di wax ne dëgg ak dëggu ñoo ànd. su ma yoree dëgg. yow mi koy jël si na nga ñaar yooyu ñooy ànd. maanaam nit dafay dikk ne Serigne Saliou man de dama fi doon ñaan lu jëkkër wala man de dama fi doon ñaan lu jabar wax dëgg yàlla am naa ko. wala koo xam ne daf doon ñaan lu doom dikk boo boot doomam indi ne ma man de dama doon ñaan lu doom am naa ko mm-hmm. su ko defee damay xoo bindkat yi bañ dikk ma ne leen mm-hmm. na ngeen gën a góorgóorlu ci bind lu wér mm-hmm. man ci sama bopp bu fekkee ne li ma yoree wér na kay fiyaat bi ma leen jox wér na su ngeen ko bindut mu wér résultat yi duñ ko mun a am waaye bu fekkee man li ma leen jox wér na bu ngeen ko bindee ba pare ngeen toppaat mbind mi maanaam saytu ko ba nga xam ne waccu leen alif waccu leen xaa waccu leen waaw waccu leen daara maanaam mbind mi niñ ko bindee niñ leen ko joxee bindee ngeen ko noonu résultat dafay am ba tax na loolu dañ ciy gërëm suñuy liggéeykat bu baax a baax a baax waaye képp koo xam ne dangaa bëgg nit hmm. bëgg ñu noobal la ko nga xam ne dana nekk sa soxna wala dana nekk sa jëkkër hmm. loolu emuma cee kenn képp ku kuñ ko mos a defal gis nga ko te kuñ ko defal danga ko gis dangaa bëgg sax sa njaboot juboo hmm. tey da ngaa am ay doom say doom yi mel ni xaj ak muus duñ laalante ñi ñaanal la ci say doom yi danañ juboo ba mel ni cereeg soow ak suukar ñaari xarit yoo xam ne dañ doon ànd dem ba ci biir seytaane dox seen diggante wala liggéey dox seen diggante wala seytaane yi dox seen diggante ba nga xam ne bëggatuñ gisante boo dikkee bañ defala li sixaar mën nañ leen jubale ba seen diggante mel ni cereeg soow ak suukar mm-hmm. loolu dañ cee am ay kayfiyaat yu wér te yi yor macha allah ñu xereñ lañ ñu jàmbaar lañ ñoo xam ne heure bu ñu liggéeyee rek su ma ko xoolee man sama bopp ndax ndax ijaaba mi ngi commencé ci nit ki su fekkee dañoo liggéey ba pare ma ñëw xool kayit bi. Mm-hmm. man mi koy xool sama xol bëgg. Mm-hmm. ma gis ne maanaam ni ñu ràbbee ñaan bi. Mm-hmm. wala niñ ko dugalee aaya yi ñu ci dugal. tawasulu bi ñu ci def jaar na yoon rek dafay continuer. waaye nag bu fekkee da nga koo maanaam dañoo liggéey ba pare nga xool gis ne kii daal. normalement lii waratoon koo dugalee nii lii waratoon koo dugalee nii lii waratoon koo dugalee nii mi ngi mel ni nit koo xam ne tey du maçon nga ñëw jox ko tabax xamul maanaam tey bu fekkee da nga war a def étage xamul fondation bi profondeur bi nu mu war a toll xamul ko mhm. dégg nga waaye nag su fekkee maçon nga ko jox moom bu bu gasee ba ne la lii kat attan na troisième étage wala quatrième étage loo ca teg rek mhm. da ngay gis ne daf koy attan te du tabax bi du toj du am benn problème su ko defee suñuy bindkat ak ñun fi mu toll ni noonu lañu yàlla boolee ba tax na ijaaba gi nga xam ne moom la ñu yàlla defal ñi ngi leen ci sant ñoom tam ci góor góorlu goo xam ne ñi ngi koy def ci liggéey boo xam ne ñi ngi leen koy jox ñuy liggéey mu jaral leen lu baree bare bari bari hmm. Cheikh Taalif moo tax day barke la kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax léeg-léeg tamit euh, ngeen bàyyi xel léeg mën na la jox kéetu alxuraan rek nga doon ko gàtt xel xeb ko mel ne lii dafa kii hmm. surtout bu dee da nga jàng alxuraan tem nga ne waa war naa ko man Euh, dégg naa dafa am kun mas bindu demoon ci benn sëriñ bu mag mm. ñu bind euh, Fatiha mm. jox ko kenn ki ne xeeb ko ne ko mën na ko keneen ki mu kii ko ñu sotti ko fenn xam ma bii dafa tàkk bii tàkkul daal xeet yooyu waaw daf ne ko bii joxoon nañ ma ko mu ne ko bii mu ne ko biñ la mu ne ko bii maa la ko jox bii maa la ko daf xool kayfiyaat bi mu ne ko bii de joxoon na ma amoon amoon naa ko mu ko bii maa la ko jox maa maanaam mi ngi mel ni hmm. fiil gi nga xam ne dafa am courant ak gi amul courant même buñ nuróowee maanaam li ci kii bokkuñ am na koo xam ne bu la joxee ijaaza wala bu la joxee kayfiyaat wala lu mu la mën a jox ci ndigal la la ko jox wala daf ko daf la ko jox ci jamonoy xaal boo xam ne mi ngi jub mi ngi liggéey tur yàlla mi ngi julli waxtu juróom yi ci ci ci heure mi ngi moytu lépp lu yàlla tere mi ngi eh, def lépp lu yàlla digle mi ngi sàmmuhante ak xaqi nit ñi nga xam ne mi ngi dox ci diggante moom ak moom. Mm. bokkut ak nag ki nga xam ne moom teetul daara. bo teetul dara. bon numéro 10 euh, am na ñoo xam ne que bu ñu taxawee ak équipement ni ñooy gën a présentable Sadio Mané mais bu ñu duggee ci terrain bi nga xam ne 10 yi bokkuñu. te mën na takk 10 moo tax coté bi wuteel am na de. waaw nga bàyyi xel bu baax mbind mu barkeel ak euh, loxo bu barkeel. Mm. ak euh, làmm yu barkeel yooyu yëpp day ñëwaat ci ñaan. ak côté sérieux koo xam ne que tamit li ko yàlla may xam ne li koy sàmm ak koo xam ne ko yàlla may xamul li koy sàmm yooyu yëpp. yeneen mbir la kon sëñ Saliou Cissé Kana bindal bindal maa ngi duggaat ci yeneen yu doy waar ah 77 734 36 37 77 734 36 37 numéro bi am na whatsapp da nga koy woo appel normal wala nga woote ci whatsapp bi bu dee da ko audio bu ko defal audio 10 minutes muy jafe euh, mu yéex a tontu dolliwaatal mu yéex a tontu dolliwaatal nga woo ko jëlul après dolliwaatal dina jël ndax ñi muy wax la bari 78 beneen bi. 226 49 61 78 226 49 61 sëñ Saliou Cissé kaana nekk ci Wakam en face pharmacie Moussa kër gi am grossiste bi premier étage nga fekk ko fi dis ko soxla mu ci man mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara taman na lépp pharmacie Moussa nag pharmacie Moussa la tudd waaye pharmacie maam Seynabou Diagne lañ ci bind maam Seynabou Diagne lañ ci bind nga bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax binduñu ci Moussa euh, la la jóge ci dëkk yu ñàng yi mais tamit ku la boole na xeetu bagage yépp Euh, nga bàyyi ko xel bu baax a baax yow mi nekk bitim réew mun a yor na bagage yoo xam boo ko laalee boo ñëwee fii jar na nga laalaat ci soo ko dellu ndax dina ubbi mbir yi bu baax a baax a baax sëñ Saliou Cissé Kana dana ñëw ci maanaam euh, kii bu doy waar boo xam da nga ko yor muy ndombo jàngu jàngu saay diggu saay mm-hmm. ndomb diggu saay boo doon wax ndomb googu lan la wund ci njariñ limal ñu ko ñu dégg waa alhamdulilah Cheikh euh, gannaaw loolu ñu ngi nuyu suñu waa dëkk di nuyu sama sëriñ mm-hmm. Cheikh Abdourahim Ndaw nga xam ne moo ma jàngal lasraar mm-hmm. ah, teg ma ci yoon mm-hmm. di nuyu suñu dëkk muy Afe Càllen Càllen ñi ngi koy nuyu mm-hmm. di nuyu suñu mbokk fa nekk yépp di nuyu uh, suñu nijaay di ko ñaanal yàlla bi nga xam ne dafa génn àdduna bu yàggut Càllen nag ku ko xam xam ko ci dëkku alxuraan mooy dëkku maam Ibu Jaw wala Baay Ibu Jaw nga xam ne jàngale alxuraan la boo xam ne kenn ku ne xam na lim def ci jàngale alquran dem ba mujj gi ijaaba ko ci yàlla defal dafay jàngal xale ci diir bu gàtt mu mokkal alquran dem jàngale nen léegi ay doomam ñoo fa nekk ñoom tam di tariloo alquran nit ñu baree bare baree baree bare bëri di koo xam ne daal yóbbu na turu càlleen fu fu sori waaye nit la koo xam ne ku man alquran la euh, ak waa dëkk ba yëpp yëpp yëpp gannaaw loolu ma wax la ci ndomb gi ndomba diggu saay digu saay li mu wund ci njëriñ saay li mu wund ci njariñ mooy ndomba goo xam ne képp ku ko yor. waaw yàlla daf lay musal ci noonu wala tëkku. noonu ku lay tëkku. ne danaa la duma. Hmm. wala danaa la yàqal. Hmm. wala danaa la def nangam. wala danaa la dóor sama loxo du la laal. képp koo xam ne wax na la ko. yow bu fekkee ne ñeme nga ko tuuti rek. Hmm. da koy wax ne ko waxoo dëgg. te lépp loo xam ne fexe na ko. lépp loo xam ne fexe na ko rek ci kawam lay këpp. ndomba gi dafa dafa aay ba nga xam ne. Mm. bu fekkoon ne footballeur la mooy Messi. mooy Messi ndax. na doon Chris waay. Chris gën a ay Messi waaw Chris sax kon waaw ndomba gi. Mm. soo ko takkee soo ko amee. Mm. dañ lay digal ne la. tekki ko léeg léeg di ko denc. ndax feeg yaa ngi ko yor say noon dañuy bëgg dee. waaw sa noon yi dañuy dañuy bëgg a dee. maanaam loolu mooy sarta bi. noom ndomba gi daal boo ko amee léegi-léegi di ko tekki. di ko denc. wala nga di ko bàyyi. ma ma doo doo ko tekki noonu yi jekku la. déedéet boo maanaam heure bi nga koy tekki noonu duñ la jekku ndax fii yaa ngi koy takkare say noonu dañuy am problème. képp koo xam ne daf laa noonoo te te te nag muy a jóg di jéem a di jéem ci yow ay pexe. Mm. wala yu demee noonu moom toujours dafay am problème. am na it beneen ndomb boo xam ne dañ koy wax wegeel naa ci ñëw mais ndomb ak diggu saay par benn benn laay ñëw ndomb diggu saay moom boobu li ñu koy liggéey ci yan côté ci alxuraan da ngay junjee wala jël dafa am ndomb yoo xam ne mm. ndax niñ ni maanaam niñ gëstoo wàllu alxuraan. pour sëñ Ibrahima ba ñu jël côté ko waaw. la ñuy liggéeyee maanaam gàllaaj gu ñuul. Hmm. diggu saay xam nga olof la laa la wax. diggu saay lool maanaam gàllaaj gu ñuul la. moom sax maanaam daraay alxuraan ne newut ci. du nag lu xaraam nag. du lu mais mën a dugg fa am na jat yëpp la doon jatal tuuti ñu dégg. jatal ma tuuti ma dégg. la maanaam dafa mu ne salaale Muhammad waalaale Muhammad diggu saay diggu diggu saay man ku ma diggu saay. Hmm. saalaali Muhammad waalaali Muhammad digu tas digu digu tas man ku ma digu tas gaa ki eh, jat la daal goo xam ne damay bañ dama ciy bañ a waaye daal digu tas digu saay ku la digu saay góor digu saay jigéen digu saay war naa mbaamam salimaxa dugg ci néegab salimaxa ak yu demee noonu nga xam ne xam nañ salimaxa uh-huh. ak mbaam li muy tekki ci jat eh, jat gu gu doy waar la daal daal boobu ndox ma ko dugg ak moom fu ne waaw buñ koy jat nag maanaam sagaru sën lañuy ñuy ut wala sagaru mbedd moo tax al asaar amut uh-huh. yow tey ni ngay rombee benn sagar ci mbedd mi wala benn buum di dem ñàkk ci am soxla am na yoo xam ne man su ma dajee ak moom hmm. maanaam mën naa ci liggéey dara waaw sagar boo xam ne dafa ne ci tali bi oto yi di ci jaar ci kawam wala ñu sotti ko ci sën ba di ci sotti wala yu demee noonu man tey su ma koy for damay dem ba séen ko ma dox gëm mu dem bu ma demee tànk laa koy foree fas ko jet ci li ma ciy def su dikkee bind li may bind boole ko moom nga def ko kooku gàllaaj la goo xam ne gàllaaj gu wér la gu wóor la te dama koy defal nit mu xooma daal di ma ci wax yoo xam ne sax man yokk wax ma ko ci woon waaw kon ndoom ba diggu saay koo ko bëgg di nga ñaq di nga ñuqi daal mais di nga ñuqi moom waaw mais am nga yërmande daal am nga yërmande ku mat a dimbali daal ngeen bàyyi xel bu baax a baax kon ndomba diggu saay dañu ñëw ci beneen ndomba bi kon ndomba diggu saay moom ci kaaraange la jëm mën a déggoo euh, ndomba wegeel la wegeel waaw wegeel moom mooy nit koo xam ne xëy na borom borom borom daraja la mm-hmm. wala wala wala homme d'affaires la mm-hmm. wala nit la koo xam ne dafa yore bureau mm-hmm. wala mu xëy di dem police wala tribunal wala gendarmerie wala yu demee noonu maanaam bëgg ñu weg ko waaw wala nit koo xam ne tey ñun la jiw mi mooy directeur bi waaye daal gars yi dañ koo xeeb léegi moom dafa war a am wegeel wegeel suñ ko liggéeyee ba pare bopp jaanu ñàngoor ci lañ koy booleeg mm. suñ ko defee yow nga takk ko mm. say noon buñ la gisee mm. dañuy mel ni koo xam ne dafa gis malaaka duñ mën a wax sax waaw dañ da maanaam dañ leen di yéem waaw man buñ jubooyee li man maa koy def waaw ndax euh, yenentu yàlla yuusufa ba ko jigéen ñi gisee ba ko sale xadi sàkku ba ko jigéen ñi gisee dañ ne fala maar ay no akbar no waqataana aydiyahunna wa qulna xaasa lillaahi ma haza bas in haza illa malakun karimun ñu ne kii dee maanaam du mbindeefu nit xanaa kii dee moom xanaa malaaka la même bu fekkee malaaka sax xanaa malaaka yu gën a tedd ci la bokk maanaam rombale nañ ko garaatu nit ba dugal ko ci garaatu malaaka waaye ba def ko sax gara malaaka yu gën a tedd su ko defee secret bi dafay ànd ak loolu suñ la ko joxee fépp foo dem dañ lay jox cër dañ lay jox garaat loo wax kenn du ko weddi loo wax ñu dëggal ko waaye nag su boobaa it del wax jàmm nag di ko def jeex na bañ a def toj toj bu baax a baax a baax a baax Abdou Khadir del wax jàmm ah. Abdou Khadir Diop basketteur Qatar beneen ndomb bu tudd delloo tooñ xanaa moom mooy boobu mooy ban waaw delloo tooñ moom dafay delloo cat waaw xam nga cat nit ki da am na ñoo xam dañ lay catu mm. am na ñoo xam dañ lay xool bët mm. bët yoo xam ne li olof di wax léeg nga xool nit mu ne lay xool ma bët yi ma sama ndey di xool mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ lay xool bët yoo xam ne mm-hmm. maanaam bëtu mbañeel la waaw wala bëtu leneen la mm-hmm. su ko defee loolu mooy delloo tooñ képp koo xam ne nit da maanaam da bañ bañ catu la ndax am na ñoo xam dañ leen a cato catoo catu ba boo leen joxoon sa téléphone bi sax mu wadd écran bi toj luñ jël mu yàqu luñ dugg mu yàqu loolu cat dana ko def bët it dana ko def bët dana dugg nit ki ba mu lekk dara sax du rees loolu bët dana ko def ndax am na ci mbindeef yàlla yi ñoo xam ne. mais sama genre gi léeg-léeg cat sonal mu ñu naan ma gis na la Real Madrid nga nekk fa te léeg la kon. waaw cat dana ko def. Ah, cat dana cat dana ko def dégg nga wala liggéey. Hmm. koo xam ne def laa liggéey nga bëgg liggéey bi. këpp waat ci kawam. Hmm. loolu it maanaam de maanaam delloo tooñ dana ko def boo ko boo ko amee lépp lu la nit liggéey bu fekkee liggéey bi am na résultat jàpp na moom dafay dellu ci kawam moom dafay toog te commencé di am problème mu foog ne sax keneen moo ko def ndax li olof di wax dafay wax mu ne maanaam bu la keneen cetoo mën ngaa wér waaye boo cetoo sa bopp pour nga wér day xaw a jafe ndax li koy waral mooy doo foog ne yaa cetu sa bopp te fekk xëy na cetu bi nga cetu nit moo këpp ci du ñetti nit teg ko stati waaye xaw naa rey gars yi xaw a du ma seen morom cet boobu day jàpp bu baax man am naa fi benn nit boo xam ne sama xarit la ñu ngi koy nuyu Abou Sow mi ngi ndar Abou Sow moom ak El Hadj Diouf ñoo bokkoon di football te nee ma maa dàqoon football El Hadj pour mu am jabar sax daf ko jafe. <laughs> mooy cata ko jàpp. cata ko jàpp koo xam ne maanaam daf ne man ak El Hadj ñoo bokkoon di fubal. te fi mu toll nii pour mu gis El Hadj sax dafa jafe. te mu ne ma man maa manoon El Hadj lépp lu yaakaaroon yàqu na mu ni ma damaa mënoon a fubal mën a fubal mën a fubal mu ni ma ñëpp ma toppoon góor ñi ak jigéen ñi. jànq jeeg ma kenn ku nekk pour ma wax ak yow rek maanaam sa daraja la. te fi mujj gi ay mbiram yëpp dafa yàqu. léegi Abdou Khadre dinaan kat la pastille sec la pastille ba ma ne ah, dund naa défense bi yëpp kii kii kon ñoom ñu ngi rey seen bopp. taxaw ci boppam na tax loolu daal képp koo xam ne du nekk nga ci métier. nga ay ci lool. Mm-hmm. maanaam bul li liggéey yow kenn lekk yow kenn lenn li. maanaam lekk ko waaye leneen def ko ci sa yaram. yàlla musal la ci cat. yàlla musal la ci bët. Mm. yàlla musal la ci borom làmmiñ wu aay. Mm. borom wu ñuul. nit mm. bon yooyu. yàlla musal la ci kon bu leen am kersa dee leen takk di naan di suur di boole ñetti ndomb yëpp am ko ñetti ndomb yëpp ku ko bëgg it mën na ko ñetti ndomb yëpp ko bëgg ma defal la ko ci benn ndomba mm. nga takk ko am jàmm am jàmm joo xam ne da nga yëg ne jàmm nga am léegi da ne da ngay dëddale di boole léegi koo xam ne que tamit dafa am njabootam soit njaboot gi di am ñuy tux cigarette di naan di mën a naan yàmba tux cigarette naan sàngara tux yàmba yi ni tere yëpp topp ñu bon mën nga leen dëddaleeg lu bon lépp. dañ koy dëddale dañ koy dindi. ndax loolu euh, léeg-léeg nga gis nit koo xam ne daf naan la man de sëriñ bi. sama doom dafay ànd ak diw sàngamte kooku dafay naan. wala dafay tux yamba. wala mu ne sama doom dafa bëgg koo xam ne maanaam kooku baaxut. baaxut nga su ko defee loolu. dañ leen di dëddale waaw loolu dañ leen di dëddale ba seen diggante soriwante. kenn ku nekk ndax nit ku nekk it am nga droit nag ne sama doom kii laa bëgg mu àndal ndax yaa ko njëkk ci àddina ki nga ki nga xam ne yaa ko jiitu ci àddina man nga ko wax fi muy toogee ndax euh, ci misaal rek olof dafay wax ne ci misaal jigéen ñi danga gis léeg-léeg xale bu jigéen bëgg benn am benn yambar ay way juróom tere ko ko mu bañ mu topp ko topp ko bu ëllëgee bu ñu ko ko mayee nga gis mu commencé nekk ci ay jafe-jafe mm-hmm. da gis léeg-léeg koo xam ne ay way juróom ñoo koy wax ne ko dugal ci kii baax na bu fekkee ku nangu kilifteef la mu gëm mu dugg ca waaye bu ëllëgee dafay dem ba ci kanam mu ne dëgg-dëgg man su duggutoon ci kii def erreur moo tax kon bëri ñoo xam ne fi nga leen fekk ñi leen di teral dañ leen faa dugal waaye fi nga leen fekk ñuy torox ñoo fa dugal seen bopp kon nag balaa loolu waajur bu nekk am nga droit maanaam taxawu sa doom ba mu tegee ci yoon bu baax a baax a baax. macha allah jërëjëf euh, sëñ Saliou Cissé kaana euh, waxtaan bi mi ngi neex bu baax njëkkanteeg temps bi léegi comme dañoo jëm ci ay élection dëkk bi ñàng campagne yi nit ñi tij tëj tijj bi bari wullente bi bay maanaam lu ne mën a am léegi nag ku bëgg falu ak candidat yu ñàkk bayra yi bëgg bayra waaw ku fëgg fal ak folli nga ne mën nga ko daal. waaw fal ak folli hmm. loolu yàlla jox nañu ko qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tashaa'u hmm. suñ ko liggéeyee niñ ko war a liggéeyee hmm. bindal nit ki li mu liñ ko war a bindal. Mm-hmm. képp kuñ ko defal da nga falu. waaw. Mm-hmm. képp kuñ ko defal. incha allahu rabi. da nga yor beneen tamit boo xalwa nga xam la spécial pour ñoom ponkal yooyu. wala dañ ciy dugg xalwa. Mm-hmm. dañ ciy defal nit ki gëstu. lu mu laaj ci ay sarax ñu ne ko def lii def lii def lii. waaye daal. su fekk samp ko ba mu dëgër nga xam ne nit ki su ko jëfandikoo. maas gi mu bokk ak li muy bokk di ko uut moom. incha allah moom dana jël ndam li. waaw képp koo xam ne jëfandikoo nga ko mm-hmm. lépp looy xëccoo boo doon course tey ñi defal la ko yaay jël pay yaay raw bu fekkoon sa fas mooy course mm-hmm. ñi def ñi defal la ko sa fas yi mooy jël pay mm-hmm. bu fekkee ne da ngay xëccoo ay élection wala ay maire ndax maire yi jàll am na ñu ci liggéeyal ñoo xam ne falu nañ am na ñoo xam ne fooguñu xoon ne sax danañ nekk ay conseil nekk nañ ay conseil loolu yëpp ay ndombal tànk la waaye daal élection yi ñu jul képp koo xam da mooy xam nga ñett ñi buñ dikkee dañuy ëppante bopp dañuy ëppante bopp mi ngi mel ne tey ay nit buñ toogoon mm-hmm. bu fekkee ne balaa dafay ñëw mm-hmm. ci ka gën a nooy bopp ci kooka lay dal dégg nga bu dee bu dee xéwal la mm-hmm. buñ ko defee maanaam ñoom en tout cas ñoom daal danañ danañ falu mais ñoom yaa ngi sóoraale loolu workat yi nekk ci ñoom nag nga defal leen dara ban kii ñu wor la loolu wala sa yoon nekku man loolu sama yoon xam nga it nit ki munoo ko ñaanal la nga ko doon ñaanal am na ko nga bëgg a toppaat lu mu am nga ne maa tax mu am ko ah. man du may defee noonu man bu ma la ñaanalee ba pare mm-hmm. alhamdulilah nga dikk ne ma li ma bëggoon dee am naa ko mm-hmm. su la neexee nga dem ma dem bu fasee kóllëre ci diggante bi ngeen sàmm it nag ñu ko ñu ñu wéel ko waaye daal du ñaanal nit ki ba pare nag topp lu am bu amee téléphone ba sax nga ne maa tax wala oto ñun ñun nuñ doxalee noonu waaw loolu moom bu yàggee moom day dem ba nit ki sax day wax ne man su ma yëgoon du ma dem ci kii ndax kii daal dëgg dëgg yegg na ma fu ma yàlla yeggul léegi nag bu jëm ci kiis jëm ci concours xëccoo magistrat gendarme ENAM bac BFEM xeet yooyu tamit loo ci man waaw bag bi passé de am na ñoo xam ne xam nañ ne Serigne Saliou Cissé am na ñoo xam ne def nañ ko quatre ah. fois mm-hmm. ñii def ko trois fois ñii def ko deux fois biñ dikkee fii jàll nañ ñii dañ maa woo ma jàll nañ d'office ah. ñii jàll ne ma jàll nañ deuxième mm. may leen waa na ngeen am rek képp koo xam ne da ngay def ay ENA wala concours wala yu demee noonu nga dikk ñi waaw concours douane ak ENA ak yu demee noonu mm. nga dikk ñu juboo ci prix ñi bindal li lay bindal mm. nga def ñi nga def ko ni ñu la ko war a defee incha allah da nga jot la ngay sàkkuteef te it mbir yi mm-hmm. ci góorgóorlu rek la ne xam nga bari na koo xam ne tey dafay contre sëriñ lu nekk mu contre ko te fekk asaar amut nit ki ni muy dikkee fii di am sabablu ne mën naa dem ci sañ saalu Cissé mu ñaanal ma loolu sabablu la kook bu demee ci école bi nun lay jàngee kooku bu duggee ci euh, maanaam terrain bi nun lay fubalee kooku bu demee feneen nun lay fubalee waaye nag bokkut ak nga xam ne nag lu nekk rek mu ne lii bi daala wala lii baaxul wala lii baaxul néewal a néewal ba nga xam ne mm. maanaam foog na daal lépp caaxaan te fekk maanaam asaar amul daal comme ni ma la ko waaye daal képp koo xam ne hmm. da ngaa bëgg kiis te nag yooyu ma la wax noonu hmm. xel mu neex moo koy def xel xel hmm. loo dégg xam ko loo jàng xam ko te boo xamee doo fàtte loolu moo koy def moo tax dañoo am kiis goo xam ne suñ ko bindalee xale bi xale bi lu mu dégg daf koy xam lum jàng daf koy xam te mu xam du ko fàtte même am na kiis goo xam ne kiis mag la mag moo xam ne dafay dem bay naax ba nga xam ne xelam mi léegi maanaam commencé ne naax ñi bindal ko ko moom dafay commencé xel mi dafay commencé di ñëwaat mm-hmm. xol bi di leer muy commencé di jàpp di xàmmee nit ñi mm-hmm. wala yu demee noonu loolu la am nañ ci ay kiis te ñu ngi ci macha allah sëñ Saliou Cissé kon ngeen bàgg kon baax numéro baa ngi noonu ci écran bi bu baax a baax a baax ñu hmm. ñëw nag ci Métan Tektal waxtu benn daf balaa muy kii ñu dugg ci yu bari hmm. euh, wàllum góor hmm. euh, góor boo xam ne que day gaaw a yegg ci wàllum sëy ak góor boo xam ne li mu yor euh, dafa tuuti mel luy gën a tuuti ak koo xam li mu yor nooy gi neexu ko dafa bëgg mu dëgër ak koo xam ne que gàttaay bi neexu ko bëgg na mu gën a kii ak koo xam ne que bëgg na yàgg ci xeetu sëy daal waaw waaw waaw loolu alhamdulilah cheikh waaw loolu dafa bëri feebar yu koy def ci nit nit ki dana yor ndoxu siti nit ki ma dana yor hémorroïde nit ki dana yor prostate nit ki dana yor sax jabet wala mu yor deret ju niim tubaab di ko wax jalis yooyu yëpp dafay tax nit ki mhm. maanaam du mën a sëy mhm. waaye yooyu yëpp dañ koy faj mhm. li nga xam ne daal duñ ko faj moom mooy cancer. kooku moom duñ ko faj. wax dëgg waaw libéré nañ ko moom moom duñ ko faj. waaye bu fekkee nit ki daal dafa yoroon dexu siti wala nga gis ne mënul yàgg ci jigéen. wala bu sàkkaraam jógee dafay nooy. wala buy sëy dafay gaaw a daanu te du doyal. wala bu mitan a demaat at bi woote a ñëwaat. waaw comme bu sëyee benn. defaat du ko mënaat beneen. wala sax am na ñoo xam ne du ñuy daanu far. mën nañ sëy mais du daanu. loolu yëpp bu nit ki dikkee bañ juboo ci ñu xoolal ko mm-hmm. buñ ko jafee ay buñ ko joxee ay garab mm-hmm. billaahi liñ ko ci wax niñ ko ci waxee dana ko gisee noonu même bu dee kuñ takk xalaat yëpp buñ fekkee kuñ takk xala la kooku moom dañ koy dindi ci saa waaw kooku moom dañ koy dindi bu fekkee kuñ takk xala la mm-hmm. li ñuy binde dañ koy binde dañ koy wax ba sàngam ñëwal bu dikkee li ñuy bind dañ koy bind rek dugal ko ci biir kii ne ko sangul mu sangu ci naan ci bu koy def rek mu deñ dégg nga kon kon takk xalaa mu deñ bu baax a baax kuntak xaala léegi kuy gaaw a yegg yëpp daal bu ñëwee dina ci gis lu kawe njort bu dikkee garab yaa ngi nii bu dikkee da ciy gis résultat bu baax a baax a baax a baax a baax te garabu naturel lañ am damay wax nit ñi ne leen bu ñu la joxoon mbuus mi nga nga naan ko mm-hmm. du la wàññi daara waaye benn kudd it boo ko jëlee mm-hmm. benn kudd boo ko jëlee dana jëriñ dara loolu mooy garab yàlla daf ñu ko xamloo mm-hmm. ndax am na garab yoo xam ne dañuy raam ci suuf am na garab yoo xam ne dangay gis dañuy judd def benn kii def benn benn benn benn baaraam nii di jóg ci kaw loolu ñooy garabu ngóora am na garab yoo xam ne dañu koy mais dañuy yaafaar lu nii mm-hmm. loolu dañu koy liggéey ci wàllu wërsëg am na garab yoo xam ne xàmmee ko garab bu góor bi ak bu jigéen xam nga garab dafa am bu góor ak bu jigéen mm-hmm. am na garab yoo xam ne ñooy góor yi am na yoo xam ne ñooy jigéen yi mm-hmm. waaye am na garab yoo xam ne góor gi jigéen yëpp ay meññi yëpp ay am am am doom garab nag léeg nga dem ci boo xam ne lu demee ni sibi nga dem ci sibi goo xam ne du meññi ñu ne la sibi gi sibi gu góor la dégg nga mën na tàntuur mën na génn ay kii mais du meññi du am doom mukk am na sibi yoo xam ne jigéen la moom dafay meññ di am ay doom su ko defee loolu nag ci garab bu nekk la am kaas yaal ak dimba daqaar ak ngijaan maanaam rand ak dibéer ak lépp ci loolu lépp la am te loolu yàlla def na gëstu nañ ko ba xam ko mm-hmm. yooyu yëpp xam nañ ko mm-hmm. euh, cholestérol tamit doo koy faj nga ne waaw cholestérol dañ koy faj mm-hmm. mooy koo xam ne deret ji dafa niin kooku bu dikkee buñ ko tegee ci yoon seex damay nit dafay dikki fii Euh, maanaam ne ma damaa am malaat hôpital boo xam ne dañoo faj ba sonn ma jox la saafara jox la garab ne la soo demee bii na ci raayu nii xooj ko boo demee mu raayu ci nii mu raayu ci def ko génn hôpital wér peleg génn hôpital ba ndax yàlla moom toujours mooy wane kéemaanam yàlla mooy wane kéemaanam nit ku nekk hôpital yàgg fa ba médecin yi sax ni ko demal nga seeti nga uuti ñaan ci sëriñ si mu dikk fii ñi faj ko wala koo xam ne daf naan man dem naa hôpital ba sonn mu dikk ndax docteur yi am na ci ñu maandu am na ñoo xam ne bu ñu la fajee faj wéroo dañ naa la demal seeti ñaankat yi bu fekkee rab la ñi fajal la ko bu fekkee liggéey la ñi rabal la ko ñi fajal la ko ndax am na ñoo xam ne dañ leen a sox dañuy mocci dañuy mocc mocc yoo xam ne ci al alquran am nañ ci ay mocc mm. waaye ci jatit am nañ ci ay mocc tax na képp koo xam ne hmm. danga am métti ci sa yaram moo xam ndigg la moo xam bopp la hmm. moo xam biir buy métti la hmm. moo xam dënn bu ubbeeku la yooyu boo dikkee dañ la koy moccil ci saa mu wér nga dem doxi sa soxla nga dem doxi sa soxla barka sa sëñ Saliou Cissé Kana ci biir Tektal TV bu baax a baax a baax dégg ngeen yi mu wax dugg nañ ci kii yu am solo baax da nga tamit da ngay mën bayre tubaab waaw bayre tubaab bayre yëpp lañ am bayre weeru tubaab xanaa Ismaïla Sarr moom dina ko soxla moom yëngal Marseille bu baax sax bayre tubaab am nañ ci yu aay am nañ bayre boo xam ne bayre kulluhum la nga xam ne foo ko sangooxee mm-hmm. foo ko jëfandikooyee foo nekk da ngay mel ni weer wu ne ci diggante ay bidiw mm-hmm. yow rek yaay nekk boo fa nekkul sax mm-hmm. da ngay gis dañ lay jàmbatu bayre da nga saf nit ñi loo wax dana neex nit ñi loo def dana neex nit ñi nit ñi dañ la bëgg te kenn du la mën a lor nag ndax léeg-léeg nit ñi bëgg la ba lor la wala nit ñi bañ la ba lor la ndax euh, mm, góor ga nee na euh, maanaam noon bu nite sax man moo ma gënal soppi bu dof mm-hmm. ok sëñ Saliou Cissé Kana waxtu bi mi ñuy dab defe naa dugg nañ ci moo ci bopp buy metti biir buy metti kaaraange mooy kii euh, danga koy def booleeg njaboot danga koy def kiis nopp wax nañ ko dëddale ñu bon bayre tubaab bayre nit ku ñuul listixaar waaye bitim réew yi mudu mudu yi jabet euh, deret bu nin listixaar hémorroïde prostate cholestérol ah, loo yottu jot ko dugg nañ ci lu bari daal loo gis ne bëggoon nga ñu dugg ci te fàtt nañ ko te neex na la lii day doxal sa liggéey waaw lii li ma bëggoon daal ñu dolli ko ci waaw mooy wàllu képp koo xam ne dangaa bëgg soxna ku bëgg soxna wala jigéen joo xam ne dangaa bëgg jëkkër jigéen bëgg jëkkër da dikk fii ñi sang la boo génnee danga am jëkkër. bu dee ku nekk bitim réew ko. nekk bitim réew la. buñ la ko yónnee ci kàttanu yàlla danga am jëkkër. et puis mu wut G mu GPM nga jox ko ko wax nu mu ko utiliser. ay GP sax. Ah. waaye am GP yoo xam ne it moo di gën a jege. Ah. wala yow moom nga gën a miin wala moom nga gën a wóolu. su su boobaa nga ne ma man kat am naa ñu jox ko chauffeur bi mu dem yóbbu ko foofa. wala nga ne ma man euh, diw sàngam laa bëgg nga joxal ma ko. mu ñëw jël si ko. ndax kenn ku nekk ak kam wóolu am na ci GP yi ñoo xam ne am na ñoo xam ne wóolu leen léeg-léeg nga jox nit GP mu ne man la diw sàngam wóoluwuma ko wala sama kib damaa fekk ñi daaji ko wala yu demee noonu mm. ah xaw nag nu muy demee waaye nag loolu xam ne yi mm. da nga leen jox gàllaaj ñi dem ci uude mais dañuy xaw a ñaaw njort ci uude bi ne changé na sama gàllaaj gi wala uude jàpp na ne ñoom ñu xam gàllaaj yu baax mm. tamit kun sàcc mu sàcc gu bees mu bëgg xam sàcc beeg yëpp mu woote waaw képp koo xam ne dañ la laa sàccal mm-hmm. wala koo xam ne dangaa bañ sàccal la ku bañ sàccal na moo gën a gaaw moom dangaa bañ sa kër sàcc dugg fa mm-hmm. wala agresseur dugg fa mm-hmm. wala comme li xew ci jamono ji ñu jëkk taal sa kër wala ñu lakk sa wala yu demee noonu ñi defal la karaafilu nga def ko sa kër boo tëddee nelawal agresseur du fa dugg karaafilu benn benn xeetu ñaan la boo xam ne dafa am euh, yuñ ko booleeg nga xam ne xam na ci xadis bu wér euh, boo xam ne Euh, daal euh, ci ñaan goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxe jàmm nga fay am nga xam ne koñ bi yëpp bu seen doon doon am problème yow yàlla dana la ci musal bu ñu ko defee ci place mhm. maanaam place yëpp bu ñu doon am problème yow yàlla dana musal ci sa place ba euh, daal loolu am nañ ci ay xeeti gàllaaju wér comme niñ ko amee ci ndomba yi mhm. noonu lañ ko amee ci gàllaaju kër mhm. koo xam ne dangaa bëgg am musluwaay ci sa kër wala ci sa place wala ci sa njaboot wala jubale njaboot yooyu yëpp am nañ ci ay gàllaaju wér jërëjëf sëñ léegi waxtu bi dab nañu émission bi neex na doyalun euh, looy tàggoo bu dul tàggatu ak koy sant ak gërëm waaw maa ngi sant euh, comme ni ma ko waxee woon rek samay sëriñ maa ngi sant euh, alaaji Abdourahim Ndaw nekk fële ca Kaffrine di sama sëriñ di sama wasiila waaye di koo xam ne dama koy dama ko dama dama koo sopp daal waaye it di sant euh, sunu sëriñ yi ñu jàngal alquran nga xam ne li ñu man ci alquran li ñu jàng ci alquran ñoo ñu ko jàngal ak ñi ñuy jàngal bépp xam-xam daal hmm. ak sunu mag sunu papa muy oustaz Ibrahima Cissé nga xam ne wax dëgg yàlla moo fi taxaw taxaw taxawaay sunu baay nga xam ne bi ñu tollee ci xale hmm. xëy na sax léeg-léeg ñi daan bëgg def ni ko xale yi de defee dem uuti xaalis wala yu demee noonu. mu naan ñi dem leen jàngi ndax sama papa bi muy dund loolu la loolu la ma mujj a bàyyee mooy jàngal oustaz Ibrahima Cissé na nga jàngati jàngaloo say rak. mu ne ma te gëm naa ne sama baay du jël xalu safara di ko teg ci sunu loxo damal jàngi. ma dem jàngi lu ma waxaan rek ma gëm ko alhamdulilah la ma daan wax. gëm naa ne xam-xam muy dëgg gis naa ko maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd ak wér yàlla barkeel ko barkeel njabootam barkeel am toppam di ñaanal ñi nga xam ne ñooy dikk ci kas ci ci euh, ñuy dikk ci kër gi it yàlla defal leen euh, jàmm ñu ne ci kaso yi yàlla génn leen ñu ne ci euh, hôpital yi it yàlla may leen wér ñu génn ci barkeentu bi sallallahu alayhi wa sallam numéro yi nga joxe rek loolu la fi ñu nekkoon changé wuñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu toppatoo na gars yi daal gars yi lekk nañ seen i yàpp petit lekk na Baye Mass bëgg topp doon daal waaw ñu ngi sant it ba tey soxna yi wax dëgg yàlla ñu ngi sant soxna yi mhm. eh, di leen gërëm ci ni ñuy toppatooyee nit ñi fiy dikk soxna yi kon yaa ngi ci ñaata ñeent waaw man moom maa ngi ci ñaar bëgg nag doolan takk nga fi di waaw ñu ngi sant soxna yi bu baax di sant bindikat yi di sant xale yi sama sët yeeg sama jarbaat yi ni ci kër gi yëpp waaw ak waa wakaam yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi kon petit dafa xaw a lekk ba mu ëpp moo tax mënatul kii bu baax Baye Mass lekk ba mu ëpp mënatul bu baax sëñ soxna si leen toppatoo njaayeen këru njaayeen leen demoon bég bu baax a baax ak euh, beneen soxna si nu mu sant baa du njaay ndaw la sant beneen soxna ndaw sant waaw ndaw ndaw waaw ndaw ak njaay mooy loolu ñoom ñëpp mooy loolu xewal dikk loraa nga dakk yoon mujj ci biir émission bi numéro sëñ Saliou Cissé Kaana balaa boobu gërëm na nañ Ousseynou Ly Allemagne Mami d'enfant France Sayer Fall Espagne euh, gërëm nañ tamit Allemagne ba Jabaate Mamadou Sow Mamadou Sow gërëm nañ ko ak Moustapha mbay ca Cologne Allemagne ñoom ñëpp euh, dëkkandoo Eugénie li leen ca euh, Cologne bu baax a baax a baax gërëm nañ tamit euh, Mami d'enfant France Afat Diop Amérique Malick Jité Grèce Ibou Dieye Espagne ñi bëgg Tektal TV bu baax a baax a baax gërëm nañ tamit ñiy seetaan teg Ababacar Diop Icon International ca Real Madrid moom xarit ñoom Vinicius ak Militao gërëm nañ ko bu baax a baax léeg ngay dugg fu noox fu neex fi di ma yóbbaale Babacar Diop waa parcelle yëpp bëgg nañ ci yow bu baax a baax a baax a baax xewal dikk loraange dakk yoon bu mujj ci biir émission bi yoon bu mujj ci biir émission bi numéro Sëñ Saliou Cissé Kana 77 734 36 37 77 734 36 37 beneen bi 78 226 49 61 78 226 49 61 sëñ Saliou Cissé Kaana nekk ci Wakam en face euh, pharmacie Moussa fay na pharmacie tudd maam Seynabou Diagne nga dir ko soxlu mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla xam tëlewul dara te na lépp égitéen bi àndal Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci Bama Samba Diop bu Derkle nekk ci Cheikh Doy rakkam mandaawe magam ummi kane yaayam am saay baayam Masamba Diop simaay maamam ajaay bàjjanam Abdou Khadir mooy nijaayam xanaa déedéet Abdou Khadir waaw Abdou Khadir comme nijaay bu valable basketeur mux nekk wet bi beneen nijaay la bu baax a baax a baax Euh, soxna May Diop ci réalisation bi Tektal TV euh, soxna Zeynab Diop gërëm nañ ko sëñ Fallou mbakk Diop gërëm na ko ak alxemma xewal dikk loraa nga dakk sëñ si Cissé Kaana xewal dikk loraa nga dakk jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax yàlla na yàlla kontaan TV